bari pexeek tànk bu gudd ak barke xooleek alal du tee ñu xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam audu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu siwaat nañu di ci àndaat ak ci beneen jataay di leen sant di leen gërëm di leen jëfal ci bàyyi xel gi jataay bi weesu ñi ngi nekkoon di waxtaan ci lu jëm ci wàllu tukki ak ñi nga xam ne danañ ci jëlee ay njëriñ waaye am ñoo xam ne ni geneen wàll gi lañ cay jëlee muy ay lor ñu indi woon ko ci anam goo xam ne ñi nga xam ne ci tukki la ñu yokkoo ci wàllu àdduna matière yi ñi gis waaye tamit ci seen wàllu ruux nga xam ne lu nëbbu la muy ci seen wàllu jikkoo ci seen wàllu diine ñu indi woon ci leeral wane ne ñu baree bari bi ñuy tukki fekk na waxtu julli du leen raw waaye ci inconvénients yi nga xam ne jëlee nañ ko ci tukki ñu bari ba ñu tukkee yàgg fa ci la ñu bàyyi julli julleetuñu waxtu wala sax ñu far bàyyi ko nga xam ne juleetuñu benn yoon li nga xam ne moo des ci seen fan yi nga xam ne moom lañu nekk ca tukki ma waaye tamit mu am ci ñeneen ñoo xam ne ci tukki la ñu jëlee yokkute ci seen wàllu diine nga xam ne bu ñuy nekk ci seen réew muy fu mu manti doon ci réew ma nu jugee dem ca meneen réew daawuñu julli daawuñu sellal waaye ca tukki lañ jëlee di julli di sellal di jaamu yàlla di moytu lu bon am ñoo xam ne mosuñoo tuux cigarette ba yegg ci naan sàngara ba yegg ci def leneen lu bon waaye ci tukki lañ ko jëlee am ñoo xam ne ci tukki lañ ko bàyyi lu mu ci ci ñaar yooyu noonu le ci jataay bi weesu ci lañ nekkoon di ci waxtaan di sant mbokk yëpp di leen gërëm ci bàyyi xel gi li ñuy waxtaanee tey du génnaat wàllu tukki donte mën na nekk ci lu dul tukki muy mbirum concubinage moom la ñu fas yéene waxtaanee incha allahu taala muy nekkaale wala fi di tuddee tuddee nekkaale mbir la moo xam ne yàgg naa am mais léegi na dafa gën a tasaaroo bi nga xam ne ni tukki xew na tukki yaatu na tukki bari na tey ñu baree baree bari ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci biir réew mi wala sax bitim réew léegi góor dem dëkk ak jigéen dafa xew jigéen dem dëkk ak góor dafa xew xew na ci nit bu mu tukkiwul waaye ci tukki la gën a baree am na dëkk yu bari tey fii ci àdduna bi ay nit nekk fa di def li ñuy tuddee concubinage rawatina ci biir nit ñooñu ñi nga xam ne ñooy ay jullit muy mbir mu ñaaw di mbir mu bon di mbir mu yées di mbir mu ruslu góor naka la mën a jëlee jigéen fat ko te du soxnaam jigéen naka la mën a jógee dem dëkkali góor te du borom këram ndax dañoo xamul ne dafa xaraam ndax dañoo xamul ne bañum rus daf ko bañ ndax dañoo xamul li muy yàq bari na tey ñoo xam ne nii waxuma sax dañoo tukki di uti alal waaye uti xam-xam lañ tàggoo seeni way jur bàyyi leen ñu dem ne dañoo yokk ji seen xam-xam am nañu bursu ñu yebal leen moo xam menn réew la ci Afrique wala menn réew la ci Europe wala fenn la ci Amérique wala fu mu ci mënti doon seeni wayjur am confiance ci ñoom bàyyi leen ñu dem seen bourse doyu leen dañoo dem dëkk ak góor jàppal ma jàpp jarul may tudd menn réew am na réew mu siiw fii ci Afrique moo xam ne ñu bari ñuy jógee ko Sénégal di ay étudiant étudiante fa la ñuy dem ne dañuy mottali seen njàng ñu ci bari bi ñu demee ay góor lañu dëkkal di jigéen ñu ci bari jigéen la ñu fat di góor te wayjur yi ci bari yëguñu ko am na ñoo xam ne danañ koo gën a yaatal ci biir waxtaan wi dem na ba seeni wayjur bu leen tàggoo ni dafa bëgg a ñëw sax duñ bëgg dalal seen wayjur fa ñu nekk ndax xam nañu seen wayjur bu ñëwee xam ne góor lañ dëkkal wala seen wayjur bu ñëwee xam ne jigéen la ñu fat muy la doy waar yow yaa ngi tàggoo jàngi ba noppi dem dëkkali góor yaa ngi tàggoo jàngi ba noppi fat jigéen naka nga mën a amee barke ci sam njàng noo mënee amee leer ci sa xel loolu mooy buntu yàqute dëgg-dëgg goo xam ne ubbeeku na ñenn ñi dañoo jug ne dañuy uti waaye dem nañu jël nañ seeni bagage dem nañ dëkk ak góor jël nañ seen bagage dem nañ jëkk dëkk ak jigéen taal xëyri doxul ci seen diggante phénomène bu doy waar bu bon bu ñaaw bu yées boobu noonu la tey moom lañ indi ci aaxiru zaman incha allahu taala fas yéene ko waxtaane ngir mu nekk jaaj ji ci képp koo xam ne yaa ngi ko doon def nga gaaw tuub dellu ci yàlla te bàyyi ko xam ne bàkkaar la xaraam na mbañu murus bañ na ko jomb-jomb bañ na ko kersa war na ko bañ ku nu yar yar bu baax am lu ñu def ci yow ci ay jikko war nga séexlu lu mel noonu nga xam ne mooy concubinage wala iyaadu billaah yàlla yàlla musal ñu ci musal ci ñi nga xam ne yëpp ñoo ci nekk ci ñamale gi am yenn yu ñu dikkaat danañ leen annoncé wax leen ne leen gannaaw bu nu jaajëfalee sunu partenaire yaay yi nga xam ne Euh, ñoom la ñu amal partenaire ci émission axiru zaman bi muy site internet yi omar nañu ko wan seneweb point com euh, oustaz point net dakar 92 point com galsen 221 point com ak leeral point net li ma metti point com waaye keneen dooleeku ci muy sunu gaal 24 point net sunu gaal 24 point net site internet yi yëpp omar di leen wan incha allahu taala émission axiru zaman léegi da ngeen ko fa mën a seetaan di jaajëfal ñëpp ak ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon wi incha allahu taala am na ñeneen ñoo xam ne danañ ci dollee ba nga xam ne site internet yi euh, ñëpp incha allah émission bi bu weesoo da ngeen ko fa mën a seetaan jërë ngeen jëf ci partenariat bi site internet yi ma tudd. dugg nañu 2020 émission axiru zaman dana am leneen lu mu indiwaat muy du ñu yamati rek léegi Makhtar Sarr rek ñëw di def ak yéen axiru zaman. mais dana leen tànnal ay invité yoo xam ne seen xam-xam màcc na ca lañ leen di doyee ñu ñëw fi def ak yéen émission axiru zaman incha allahu taala fas yéene nañ émission bii ni ñëw ci lañ koy door danañu am invité muy kër Mbuub mi nga xam ne moo jiite ànd sàmm jikko yi danañ ko dalal fii ci axiru zaman séq ak moom waxtaan ci actualité yi nga xam ne ni mi ngi xew rawatina mbir mi nga xam ne assemblée nationale fan yi ci ginnaaw ñi ngi ko doon waxtaanee. muy mbirum modifier lu jëm ci article 319 bi nga xam ne mooy wax ci acte contre nature nga xam ne demoon nañ ba bëgg koo modifie ci information yi ñu jot Mamadou Lamine Diallo député boobu moo waral demuñ ba nga xam ne xuus nañu ci duñ ci yaatal waaye danañ ci dikkaat ak sëñ Babacar Mbuub incha allah ak yeneen yoo xam ne mi ngi xew ci réew mi ci xeetu yàqute rawatina lu jëm ci wàllu ngóor jigéen muy lu bon lu yées lu ñaaw loolu ñu ngi leen koy annoncé ne ci 2020 bi incha allahu taala danañ ko door ak yéen yenn yi danañ ñëw comme niñ ko daan defee comme nii seq ak yéen waxtaan wi ba mu jeex waaye yeneen yi dana am ñunu dalal ñoo xam ne ni danañ seq ak ñoom waxtaan incha allahu taala yooyu ci yokk ci axiru zaman la bokk. Euh, ba tey ci xew euh, assemblée national voté nanu assemblée national voté nanu euh, loi boo xam ne dafa criminaliser mbirum viol ñan ñoo ko sàkku mooy jigéen ñi nga xam ne dañuy xeex droit. di ko xeexal seeni mbokki jigéen ñoo demandé woon pour ñu criminaliser lu jëm ci wàllu viol voté nañ ko ci assemblée nationale joxe nañ seeni chiffres nee nañu 2018 bi lu mat 1321 viol la ñu enregistré ci jigéen ñi léegi nag ba tax na loolu ñu demandé woon ci njiitu réew mi pour ñu voté loi boo xam ne dafa criminaliser mbirum viol ba voté nañu ko am naa ci tiitaange lool nag lool sax ci loi bi duma ci wër loo sax naan euh, rafetlu nañ ko ak nangam ak nangam damaa weesu loolu noonu li xam nga moom mbirum viol ñun ñi nga xam ne nii ci chariatul muhammadiya la ñuy tibbee sunuy njàngale bu lislaam waxee ne ku am borom kër njaaloo nañ ko rey xam nga kooku moom euh, ñuy criminaliser viol moom nekkatu lu diis ci moom ndax lislaam dana képp ku njaaloo te am borom kër wala nga am sox nañu am ay preuve nañu la rajimu nañ la jam ay xeer ba nga faatu su dee da njaaloo te amoo borom kër amoo soxna nañ la caw téeméeri yar xam nga lislaam moom bu waxee lu mel noonu moom moo njëkk xeexlu jëm ci xeetu njaaloo yépp viol ak leneen lu dul viol waaye lan moo indi viol loolu lañ war a teg ay loi yoo xam ne moo koy tere ak jàngal nit ñi lan la ñuy def ba duñ yegg ci viol professeur euh, xawma nan songe la defe naa Omar ki nekkoon fële ca TFM nekkoon ca plateau ba euh, ba mu waxee ci wàllu viol wax ne xale yu jigéen yi bu ñuy wax ci viol nañ wax ci seen col gi ñëpp song ko mais dama appuyé woon xalaatam boobu noonu la am na loo xam ne dañoo war a ut ay mesures yoo xam ne mooy accompagner lu jëm ci wàllu loi bi mënoo xeex viol ba noppi xeexoo lii indi viol xam nga jamonoy paccal la ñu toll ñu baal ñu ak i tóoj jigéen ñi fu ñu toll seeni ween ñu ngi koy bàyyi ci biti jël zipp sol ko toog janoo góor ci car rapide sa awra yëpp nekk ci biti loolu noonu la amul dara loo xam ne jël nañ ko comme ay mesures yoo xam ne yu koy tere yooyu nga xam ne mooy yóbbu nit ba ci viol waxu ma ne loolu dana waral viol donte dana ko waral dama ciy duut baaraam dama ciy duut baaraam ndax bu njëkk bi jigéen ñi sàngu seen cër waxuma sax ci wàllu diine mais ci wàllu aada ñi ngay sol sëlu sëlu rabal seen ween góor du ci teg bët seen biir góor du ci teg bët seeni pooj góor du ci teg bët mais waxuñu ay kaawu viol ba benn année ñu naan ay mille et kañ la ñuy indi chiffres yu nii ci année naan ay mile et quelques viols enregistré nañ ko en deux mille euh, dix huit mooy bi jamono xii grand raj amee ween out jimbax out doo niwi pooj out yëpp nga bàyyi ko mu ne faa nga ci biti mais yu mel noonu ba mu tasaaroo ñu koy sàgganee ci société bi moo indi ñi nga xam ne dañoo feebar li suñ borom naan fii qulubihim maradun wala euh, fa yatma alladi fii qalbihi maradun am na ñoo xam ne suñ borom nee na seen xol bi feebaru njaaloo moo ci nekk feebaru bëgg jigéen moo ci nekk mais lan mooy yee feebar boobu noonu la ci ñoom mooy seen bët am lu mu tege loo xam ne ni lu xaraam la moo ko yee ci ñoom kon bu ñu indee ay loi yoo xam ne dafaa xeex viol lii waral viol tamit nañ indi loi yu ko xeex nañu dem tàmbalee ko ci école yi tàmbalee jàngal xale yi nan la ñuy nëbbee seen i cër waaye dem ci école jàngal xale nan lay njaaloo te du am euh, doom jàngal ko ku góor ki jàngal ko ku jigéen ki dem université di maye ay préservatif ba noppi naan da ngay xeex viol xeexoo viol da bëgg a yokk viol loi bi nag musiba gi muy jur mooy nañu xool fi fii ak nangami année ba xam ndax dafay wàññi viol wala daf ko yokk ndax daf koy wàññi wala daf ko yokk ñaata depuis mille neuf cent nangam soixante lañ euh, euh, tegoon loi bi nga xam ne mooy xeex viol ñaata nit lañ tëj ci kaso bi ci viol ndax tax na viol wàññeeku mais boo arriéré at yi ci ginnaaw 1960 70 80 ba 2000 mais da nga gis ne kaawu viol yi moo gënoon a néew ka ci année yi ni muy gën a continuer l'an mil ak léegi li fi xew ci kaawu viol mosula xew kon lan moo indi viol gi mooy bi demee ba jigéen ñi tàmbalee col col gu di gu bon kenn mënu la xeex viol te loolu doo ko joxañ baaraam donte boo ko tuddee ñenn ñi ne non déedéet nit kii da nga war ko xoolee comme ci sa doom nangam ak nangam mais l'islam bim ne jigéen na nëbbu ay cëram mais mu ngi doon xeex viol l'islam bi mu ne góor na sajj ay xefam jigéen na sajj ay xefam waxuma la sax ngay dem di njaaloo mais bul xool kooku mi ngi doon xeex viol bi muy bañ ne jigéen ak góor bu ñu nuyuwante bu ñu jonjoo bu ñu wéet te alxayri doxul ci seen diggante mais mi ngi doon xeex viol pourquoi enseignement yooyu noonu la islam jàngale jëlañ ko ñu favoriser ko nit ki li nga xam ne moo gën a gaaw pour xeexloo ko pour mu bàyyi viol mooy at taqwa nekk ci moom muy ragal yàlla ragal yàlla nag li koy def ci nit nekkul ne da ngay jàng téere yi ba jeexal ko ndax bari na koo xam ne mën na tari kaamil bi dàq njaaloo ñëpp du am ndax ragal yàlla nekkul ci moom mais bu ñu fexee ba nit ñi ñu def ci ñoom ragal yàlla def ci ñoom jom def ci ñoom jomb-jomb mooy li gën a gaaw ci xeex viol waaye ñi ngi jéem a ruumandaat ay mbir yuy bëgg a xew ci école yi ay éducation sexuelle comme lu bon la nga xam ne France voté na ko te loolu mooy raam bi jëm si ci suñu école yi xale bu am deux ans ñu koy jàngal yaayam ak papaam na la ñuy nekkee ci néeg bi mais yu mel noonu buñ ko defee muy système mu dajjaalisation boobu noonu la ci àdduna bi ba noppi ñu ëlbatiku naan dañuy xeex viol dañuy tappale mais xeexunu viol nañu waxante dëgg lii indi viol nañu jiitu ci xeex ci te mooy ñu yar njaboot gi def ci ñoom kersa def ci ñoom jom tàmbalee ko ci biir kër yi waajur yi di jëndal seeni doom col gu jot ñu koy sol waaye xale bu am cinquant nga jël zipp solal ko mu génn ci mbedd mi nga jël budi bodi solal ko ba noppi mu màgg ci loolu yaru ca dara ci awraam du ko nëbbu bu soloo ba noppi la mu sol mën nga jënd muusu dërëm dugal ko ci ba noppi ñu ëlbatiku naan léegi viol yi dafa bari dañuy voté ay loi yu criminaliser viol dama ne lii indi viol ngeen war a njëkk a xeex balaa ngeen di xeex viol leen ci xel waaw bàyyi leen ci xel beneen bi mooy. Euh, fàttali la balaa ñoo dugg ci waxtaan wi lu jëm ci waxtaan wi passé nga xam ne ñu ngi doon wax ci ñamale gi ngóor sale nga xam ne moo doon julli ci wolof ngóor si nag ñu bari ñu ngi may laaj fan la nekk mais ci gëstu yu na am naa ne jamono yi ma nga Italie wax nañ ma turam ak santam am na yu bari yu ma gëstu ci ay mbiram waaye la ma waxoon nag laay dellu si xam nga nag Omar wan ñu benn vidéo gars yi dañoo mën a tappale trop waa bi muy def vidéo mi ngi gëmloo nit ñi ne leen àdduna bi yëpp xëy na sax moom moo njëkk a def julli gu mel nii ndax bëgg a laabiire nit ñi fekk day tappale julli gi moom xew na ndekete bu yàgg yàgg yàgg aw nit di ko def xoolal vidéo bi Omar di ñu bëgg a wan wan ñu ci lenn rek ñu del siwaat ci Omar alal halalika bom porro kan ine mane menu ma wulula silale koye mone kene menu ma wolu ta ko tɛ filiban telu fana ta ko tɛ ala kete agbɔku alaali gis nga vidéo bi kii julli mi ngi julli ci lan ci làkku bambara lay julli ci xibaar yi mu jot nee nañu mi ngi Mali kii ba muy def lii lii yàgg na man vidéo bi gis naa ko lu yàgg yàgg yàgg sama xel sax génnoon na ci bi ma gisee waa ji muy julli ci wolof kon moom dafay copier aw nit yoo xam ne tàmbali nañ ko te kii di julli nii moo ko gën a ay sax moom li muy jullee ci làkk bi nga xam ne moom mooy bambara ci ñi nga xam ne dégg nañ ko moo wax ak ñoom ndax ne nañ ma moom la muy tari di ko firi sax moom moo gën a jub waaye gis nga lii yëpp dafa am keroog lu ma waxoon lu ma ta bàyyi xel dafa am fu ñu déparé ba tollu fii gis nga biñ ñëwee tinkiku mag ñi fii ci senegal dañ ñoo yar ci lislaam ju set wecc joo xam ne dañ ko tibbee ci njàngale yu set wecc te biir njàngale yu set yooyu noonu lañ ñu doyloo madhabu Malik muy ngirum imam Malik murid ba ca ngirum Malik la tënku tiijaan ba ca ngirum Malik la tënku xaadir ba ca ngirum Malik la tënku laayeen ba keneen ak keneen ci ngirum Malik la tënku gis nga ñun ñëpp bu ñu dellu woon tënku ci ngirum Malik problème yi yëpp du am waaye bi ñu ñëwee tàmbalee tinkee ko jël ay xel ak i xalaat di ko dugal ci biir diine ji lu nekk ñu naan jamono dafa laaj nangam ak nangam. loolu nag moo indi inconvénients yi nga xam ne judd na xam nga ne jamono ju yàgg ba léegi ñu ngi debaatar ci xutba ndax war nañ ko def ci wolofam waruñ ko def ci wolof ndax xutba dañ ko war a def ci arab kese nit ñi dégguñ li ngay wax ñenn ñi nga xam ne ñoo ñëw fekk mag ñi daan xutba ci arab ñu ci bari ñu ne loolu noonu le dañ ko war a dindi madhab bi nga xam ne moom la mag ñi tënk muy madhabu Malik boo ci xutbaa ci lu dul arab du wér loolu moom moo wér ci madhabu Malik xutba dañ ne munu la ñàkk baat yi ngay tudd an yakuna arabiyan mënu la ñàkk mu ne kaaram mais ñu ñëw ne waaw di wax ak nit ñi te xamuñ li ngay wax loolu amul benn sens nit ñi ne waaw effectivement loolu moom xel nangu na ko jamono yooyu laa daan wax ne leen attention su fekkee mbir yi rek ci xel la tënku tënkootul ci ay tex ñu naan waaw bu fekkee da ngay wax ak nit ñi li ngay wax xamuñu ko loolu amul benn njëriñ danañu xëy tàmbalee nodd ci wolof man ba may wax loolu xalaatuma woon sax ne dina xalaat ne mi ngi julli ci wolof ak di julli ci bambara ak saraxuleeg ak yeneen ak yeneen xalaatuma koon man maa ngi doon wax ne leen noddu gi ñuy noddu dañ naan xayya ala solaa ayya ala al falaax loolu nga xam ne moom lañuy wax nit ki lañuy waxal naan ko ñëwal ci julli gi kaay ci mbég mi bu dee fajar la ñu ne ko assalaatu xayrun min an nawmi sa nelaw yii ngay nelaw julli moo ko gën ma ne leen bu mbir yi continuer ñu naan xutba waruñ koo def ci arab wala ci wolof ci lu dul euh, wolof wala xutba waruñ koo continuer di jàng ci arab dañ ko war a traduire ci langue bi nit ñi dégg kon danañ xëy ne léegi noddu yi naan kaay leen julli te nit ñi xamuñ li ngay wax amul benn sens kon nañuy noddu di wax ne kaay leen julli ak bu fajar jotee ñu naan nelaw yi ngeen di nelaw jullee ko gën ba may wax loolu boobaak léegi ay at yu yàgg-yàgg la waaye léegi nag xoolal li doy waar waa ji bi muy julli ci li nga xam ne moom mooy wolof li mu layoo mooy aaya ba gaa ñiy layoo bu ñuy layal xutba ci arab mooy lan bu ñuy layal xutba ci lu dul arab mooy lan wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi sunu borom dane mosumaa yónni benn yonente lu dul ci làmmiñu nitam ñoom ci seen firin ñoom gaa yi xutba ci wolof yëpp ak ci français ak yeneeni làkk aaye boobu mooy seen lay mooy daal nit ñi ngay waxal li ngay wax ak ñoom war nañ la dégg xel lañ jëfandikoo xoolal waa ji moom it bi muy julli ci wolof xelam la jëfandikoo mooy gannaaw sa borom ngay diyaaleel di wax ak sa borom yow li ngay wax ak sa borom war nga koo xam bu dee wàllu xel kese la waa ji kon day am raison ci wàllu xel comme ñi lañ nañ jàppee ne am nañu raison ci wàllu xel ñuy xutba ci wolof kon li may wax foofu mooy diine ji bu fekkee dafa dem ba léegi ci xelum kese la tënku kon su boobaa buntu dund sa bànneexu bakkan ubbeeku na kenn ku nekk di def lu la neex nañu tënku fi nu mag ñi tënkoon madhabu Malik set na wér na sell na tegu na alal kitaabi wasul na kon li nga xam ne mooy njàngaleem mu wér buñ ko fi bàyyee tàmbalee indi sunum xel ak di jëggaani yoo xam ne ca ngirum jàmbur la te mu am ci ngirum Malik problème yii nii dafay wëy te du mos a saafaraw waaye ñu tënkee foofu wax ne waa ji moom yaa képp koy roy julleem gi moom daf ko copier moom dafa sàcc julli gi moom jàppoon na ne mooy indi lu bees waaye kii ma leen wan nii gis ngeen ne moo ko njëkk def li muy def yëpp te ko ci gën aay moom dem na ba doon imaam nit ñi di ko ca muy jiite aw nit muy lu doy waar. am leneen lu la mësu ci ginnaaw loo xam ne nag xëy na bis danañ ci mës a ñëw maa ngi jaajëfal menn mbokk mu tudd sëñ Idrissa Tunkara mu ñu ngi ciy jokkoo mu ma ci wax yu am solo. dama gis nga la indi julli gii nii nit ki di ko def di julli ci wolof ak làkk yooyu mu ne dafa am benn xeex boo xam ne léegi départ na mooy panafricain ma lañ koy wax nga xam ne ñi nga xam ne dañoo gëm ne dañoo war a delluwaat ci moomal suñ bopp rejeté tubaab bi li mu indi yooyu noonu xeex yooyu noonu nga xam ne ñi ngi koy xeex pour delloo étranger yi ñu moom nee na loolu mooy laawaale ba duggaale ci biir diine ji ba nañ ne gannaaw dañoo delloo français yi li ñu moom nañ delloo arabe yi li ñu moom xam ne léegi nit ki gëm-gëm bi mu am mooy dañoo war a dellu ci suñu cosaan pourquoi ñu nekk fi naan ñi ngi jàng langue jàmbur te ñun am suñuy langue kon nañ ñem suñuy langue yooyu la ñuy bëgg a nekk di ko raamal benn benn buñ jugee ko ca anglais ya français delloo leen li ñu moom noonu tamit la ñuy jëlee arabe yi ne dañ leen di delloo li moom te jullit moom bu delloo arabe li moom muy arabe arabia rek su boobaa génn na ci lislaam ndax suñ jaamu yi ñu def yëpp bi ci gën a màgg mooy julli julli yëpp arab lañ koy def loolu kenn mënu ko delloo te yooyu sew-sew la yoo xam ne yu mat bàyyi xel la su ko defee loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ koo indi ko mu ñamali ñu dugg si ci sunu tem insha allahu taala su ko defee kon suñu tem tey mooy mbirum nekkaale góor ñi nga xam ne ñu ngi dem di dëkk ak jigéen jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dem di dëkk ak góor muy lu xew loo xam ne lu doy waar la loolu nag balaa ñu cee xuus di wax bonaayu nekkaale boobu góor di dëkk góor njaaloo ga ñuy def na mu xaramee na mu bonee na mu yéesee dafa benn waxu yenente bu ñuy fàttali sallallahu alayhi wa sallam te néewal guñ ko néewal lu mel nii moom moo koy tasaare yenent bi dafa waxoon sallallahu alayhi wa ne daganul benn jigéen muy tukki tukki lu mat benn guddi wala ñaar ba ñett lu dul ne ànd ki nga xam ne mooy ko armalam maanaam 24 heures daganul jigéen di ko tukki lu dul ne ànd naag ki nga xam ne mooy koj armalam kan mooy koj armalam mooy nga ànd ak sa jëkkër sa mag sa rakk sa nijaay mbokk mu la jege moo xam ne ni mënu takk wala sa borom kër gi nga xam ne moom ma la takk mu ne daganul jigéen di tukki tukki mu toll noonu te àndul ak ñii waaye léegi ñu ne dafa xew yi léegi li xew mooy da ngay dem ambassade demande visa ñu may la ko nga dagg sa billet dem Europe dem Amérique dem partout fu la neex ci àdduna bi jigéen yow cundum yow kese yaay dem dëkkal dëkkal sa bopp ci sa appartement wala nga dem dëkk kenn koo xam ne sa xarit la ba xëy mënal sa bopp dem jël sa appartement gis nga lii yenent bi tere woon bi ñu ko lànkee ci la concubinage tasaaroo njaaloo gi tasaaroo góor di dëkk ak jigéen am jigéen di dëkk ak góor am xam nga jigéen ji nga xam ne ni ànd na ak borom këram mais ndax dana nekkaaleeti borom këram lay nekkal jigéen ji ànd ak fereeram bi muy tukki wala bi muy dem fereeram la fekk ñu dëkk fenn ndax kooku dana xalaat a jël góor ne mi ngi koy fat wala mi ngi dem fa euh, dëkk góor te fereeram mi ngi fi muy maga ak rakkam ndax dana ko def wala nijaayam la fekki wala baayam la fekki wala yaayam ndax dana ko def waaye bi jigéen amee liberté ñu gëmloo ko ne ko léegi am nga liberté mën a tukki yow kese ci la mën a dem nag moom kese bu dëkkee ba ami problème ñenn ñi problème yi la ñuy wax moo leen ci dugal ñenn étudiant yi nga xam ne ñu ngi def nekkaale dañu ne seen bourse satisfaire leen kon léegi nan la ñuy def mooy dañu dem ci moroomu góor moo xam ne am na bursu wala tàmbali naa liggéey ba am lu mu jàpp ñu dem dëkkal ko nekk ak moom di ko toggal waaja dem di indi dépense ñu dëkk ñoom ñaar lan lañuy ñuy layoo mooy problème mu ñàkk léegi ndax bu jigéen demoon nekk ak benn rakkam ak magam loolu noonu le du ca mucc waaye teggi gunu teggi ndigalu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo dugal ñu bari ci mbon gi nga xam ne moo tasaaroo léegi muy nekkaale te nag lii mooy mos di am waxtu woo teggee waxtu woo teggee tëralinu sunu borom li suñ borom naan képp ku wàcc sama yoon fa inna lahu maishatan danka dund gu xat gu naqari ngay dund lu mel nii rek lay jur concubinage benn njëriñ du ca juddoo lu dul réccu da ngeen di xëy dóorante mbagg xuloo xeexoo kenn ku nekk di regretter sa morom li nga ko defar ak li nga ñàkk ci moom xam nga concubinage euh, inconvénient mooy ñemewoo cee nekk di am doom tey bi mu demee ba système mu dajalisation bi indi njaaloo te doo ëmb moo indi tey góor mën a dem dëkkal jigéen wala jigéen dëkkal góor ñu nekk di njaaloo di jëfandikoo seen i jumtukaay yuy tee ñu ëmb mais bu la leeroon ne da nga toog sa yaay ñu woo ko ne ko sa doom ji tàggu woon la ne day ne day jàngi wala day liggéey am na doom xam nga ne doo dem di dëkk ki góor waaye léegi lan lay jur mooy appareil bi ngay topp sa bànneexu bakkan di def loolu noonu la doo ko yëg waaye bu at gën a dox ci ngay xam ne ci pertement nga nekkoon dëgg-dëgg muy ku góor ki wala ko jigéen ki mbokk yi concubinage lu bon la lu xaram la ndax njaaloo la te sunu borom nee na wala taqrabu zina innahu kaana faaxisatan faaxisatan wa saa sabila ca suratul isra bu leen jege njaalo ndax lu bon la lu ñaaw la te soobu yoonu njaaloo lu yées la ca suratul nuur sunu borom ne yéen ñi gëm yàlla yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ñi gëm yàlla nañu sajji seen xef nañu sajji seen xef bu nu xool yàlla gërëmul nanu wattu seen pëy nañu takk seen sër ba ñu dëgër wala seen seen tubéy ba mu dëgër ñi gëm yàlla nekk góor loolu mooy gën a sellal ñeel leen sunu borom ne inna allaha xabirun bima yasnaun yéen ñii nekkaale attention maa ngi leen di gis xam naa li ngeen di def allahu akbar yow mi nga xam ne dugg nga ci sa biir kër tëj buntu kër gi ànd ak góor ànd ak jigéen dugg sa appartement tëj bunt bi ànd ak góor ànd ak jigéen dugg sa sàmbur tëj bunt ba ànd ak góor ànd ak jigéen ne kenn nekku fi sunu borom nee na inna allaha xabirun bi ma yasnaun li ngeen di def maa ngi koy gis allahu akbar yastaxfuuna min annaasi wala yastaxfuuna min allah wa huwa maahum wa huwa maahum yaa ngi nëbbu sa yaay ak sa baay ak say mbokk li ngay def ne gisuñ la bu la leeroon ne am na ku nekk ci kër gi di la gis gis ki ngay fat mais doo ko fat lu tax nga ñeme koo fat mooy da nga gis ne kenn gisu la sunu borom nee na inna allaha xabirum bi maa yasnau li ngeen di def maa ngi koy gis mu ne waxal ma jigéen ñi gëm yàlla mu'minaat waxul ko naan man jullit laa non pratiquant musulman non pratiquant naafeq pur sax mooy musulman non pratiquant te da nga dégg léegi jullit ñu koy wax cim ñàkk jom musulman non pratiquant loolu mooy lan naafeq boo ko plusee rek mooy naafeq judd suñu borom ne ñi gëm yàlla di jigéen ne leen yax dut na yi na absaarihinna nañu sajj seen xef wa yaxfadna na ñu takk seen sër ba mu dëgër mooy ni ma waxoon léegi ci ndoorte ndoorteli liy xeex viol gis nga sunu borom loi bi mu njëkk a pour xeex viol mooy boo gisee lu xaraam gëmmal yow ku góor kee ku jigéen gi yow muy gis lu xaraam gëmm danga nga xalaata viol sunu borom nee na nga takk sa tubéy ba dëgër yow góor gi gëm yàlla takk sa sër ba dëgër yow jigéen ji gëm yàlla loolu ay aaya la yennat ci biir aaya yi alquran di loo nekkaale sallallahu alayhi wa ne amul benn bàkkaar bu gën a màgg gannaaw bokkaale ak yàlla min nutfatin wadaaha rajulun fi rahimin laa yaxillu la gannaaw bokkaale yàlla sallallahu alayhi nee na amul bàkkaar bu gën a rëy ndox di jël góor di jël ndoxam di ko du di ko dénk wala di ko teg ci ruxumu jigéen joo xam ne ni daganu ko xoolal bokkaale ak ni mu fooree ba suñ borom ne ku ko deyaale du ma la ko jéggal inna allaha la yaxfiru an yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha gannaaw bokkaale maulana rasulullahi nee na amul bàkkaar bu gën a foor góor di jël ndoxam di ko teg ci ruxu mu jigéen ju ko daganul ndax yéen ñi nekkaale hadis bi yegg si woon na ci yéen beneen bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku góor ki jamono yi muy njaaloo ku jigéen ki jamono yi muy njaaloo seen ngëm yàlla dañ koy rocc mu tiim leen comme niir bu leen tiim nii comme lu leen tiim di leen keral nee na gannaaw bu nu njaaloo bu nu tuubee suñ boroom delloo leen ko waaye bu ñu tuubul dañuy wéy dootuñ doonatee ko gëm yàlla am beneen xadis boo xam ne yenent bi dafa tudd ñett ñu yàlla jéppi mere leen ba ëllëg yomal xiyaam du leen xool du leen sellal mbugal ak leen di xaar mu tudd ca biir ñooña mag muy njaaloo mag muy njaaloo wala ku sangewu ba noppi di njaaloo ndax cheikh dana firi mag dana firi ku sangewu ca alxuraan ca aaya yenu man suuxal ca suuratu nuur loolu beneen masala la ci wàllu diine kon mag muy njaaloo wala ku sangewu di njaaloo ci ñi yàlla gën a jéppi ca ñooña la ñu bokk te ku sangewu di njaaloo mooy da nga gis koo xam ne fii la nekk ci Sénégal wala Gambie wala Mauritanie jóge fi dem Europe wala Amérique bàyyi fi soxnaam su ko lew dem di fatti jigéen loolu la tax sonnatul sax ne mu ngi ñibbi si di uti kayit bàyyi fi soxnaam bu tekk sërëm ba mu dëgër toog di ko xaar ay at te moom ma nga jël jigéen fat ko wala mi ngi dem di dëkkali jigéen chaque weekend am na bëri na góor ñu nekk Europe wala ñu nekk Amérique xam nañ li may wax su ma tuddee foofu tudd naa feneen fudul foofu ba ci ci yenn réew yi ci Afrique bëri na góor ñoo xam ne seen soxna ñi ngi toog fii ay at takk seen sër ba mu dugal ba mu dëgër di julli di leen ñaanal di dem ci sëriñ di leen ñaanal pour ñu am këyit ñibbisi ñu gis leen ñoom takkuñu seen tuba yi weekend bu nekk dañuy dem kër jigéen dëkk fa weekend bu nekk ñu fat góor ci seen appartement nekk jigéen ay waay ak a ruslu ak bon ak a ñaaw sa soxna boo ko wooyee naan ko namm naa la man moom sedd bi fi mu toll nii sama xel mi yëpp ci yow la nekk te waxoo benn lu am ñu baal ñu nañu waxante li am nañu ragal yàlla ci li ñuy def xoolal trahison boobu noonu la ngay trahir sa soxna mu lay muñal toog lu nekk mu daj ko yow nga nekk di nekkaale jigéen ñi ca fa nga nekk ca bitim réew ndax dana tax kayit yomb la fi nuy jeexalee mooy mbokk yi xadis bii nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax muy xadis bu raglu mu nettali gént gu mu géntoon ñaari malaaka dikkal ko ànd ak moom di am yuñ koy wan di am yuñ koy wan ba yegg ci yeneent bi nee na ñu dem ba yegg ci benn bërëb boo xam ne benn bën bën moo fa nekk benn turu bu mel ne fuur nee na turu bi nii ci kaw gi dafa xat mais biir gi dafa yaatu nee na aw nit nekk ca aw nit nekk ca ñu leen di lakk bu ñu demee bay bëgg a génn ca bën bën ba malaaka yi dóoraat leen ñu dugg ci biir mu ne nit ñooñu ay góor ak i jigéen yu raflewu la nee na ma laaj malaaka yi nga xam ne ñoo ma indi foofu ne leen waaw pour bii nga xam ne biir gi dafa yaatu bën bën bi xat góor ak i jigéen yoo xam ne solo ñu yére nekk fi di yuuxu nii ñu leen di mbugal ñuy bëgg a génn ñu leen fiy dugalaat jigéen ak góor ñii mooy ñan mu ne ko ñii mooy ñi doon njaaloo ñi doon def concubinage allahu akbar mbokk yi dund gu xat gu gàtt gi nga xam ne ku fi dund léegi soixante-dix ans ñu naan bari na rawatina nga yegg cent lan moo fi jar mbugal moo xam ne ay mille mille wala millions yi millions yi année du jeex te njaaloo daf koy jur nan la waaye nañu ragal yàlla ci li def nañu ragal yàlla ci li ñu def sunu borom nee na yéen ñi nekkaale li ngeen def umpuma leen ku ko daan def tuubal nga dellu ci yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may seetaan te nekk ku gëm yàlla nekk ku ragal sa borom nekk ku sóoraale ëllëg xam ne dund gi yemul tey nekkaale bi amul la benn intérêt amul la benn njëriñ fii ci àdduna ak ëllëg yomal xiyam mataaun qalilun wa lahum azabun alim lu tuuti lañ la ciy satisfaire ci wàllu koom-koom mais mu yàq sa avenir li des ci sa dund waaw li des ci sa dund ndax njaaloo mujj gi mooy feebar bu dul wérati ñàkk gu dul saafarawooti gàtt fan dee dugg biir bàmmeel mbugal fekk la fa ba yomal xiyaam ñu audité la audition bu métti nga dugg safara kon amul avenir ndax bànneexu quelques minutes matérielu àdduna quelques minutes war na la koo jaral ngallaawaay ngallaawaay nañu ko arrêté concubinage ak lu dul concubinage luy xeetu njaaloo nañ ko arrêté njaaloo gi bari na de xoolal 31 décembre bii ñu génn ñaata nit ñoo ci njaaloo ñaata. da ngay génn romb romb dëkk bi góor ak jigéen col gu bon gu gàtt gu xat auberge nga romb oto yi ran ba fees mu leer la ne demu fa toog ngir lekk ak naan ak waxtaan waaye njaaloo te njaalookat yu bari ñu ngi bàyyi seen soxna njaalookat yu bari ñu ngi bàyyi seeni boromi kër. xanaa jotul xanaa jotul ñu ragal yàlla sunu borom subhanahu wa taala tuub dellu ci yàlla jot na te bàyyi ne kaale bi lii lañ leen indiloon tey ci aaxiru zaman di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. pexeeg tànk alal du ñu xëy la xam-xam bu ci yàlla mbaa ci duniyaa. du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam